ñeenteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi yàlla sàkk na lépp ci juróom benn fan lépp li yàlla sàkk dafa selloon te amul woon sikk lépp li yàlla sàkk dafa ko teg ci yoon yàlla du def lu jubul te sàkkul lu bon ca juróom-ñaareelu fan wa yàlla noppalu ndaxte noppi na lépp li mu bëggoon a sàkk noonu yàlla barkeel juróom ñaareelu fan wa muy bés bu sell fii la nettali bi yam léegi ma laaj leen fukk ak juróom ñaar lu tax yàlla sàkk lu sell ak lu baax rekk ndaxte yàlla dafa sel te dafa baax kon lu sel ak lu baax rekk lay def fukk ak juróom ñett ndax gëm ngeen ne ber benn bés def ko bés bu sell am na solo lu tax ndaxte yàlla barkeel na juróom-ñaareelu bés ba muy bés bu sell soxla nañu ber ab diir ngir fàttaliku yàlla te màggal ko yàlla noppalu na ci juróom-ñaareelu fan wa muy misaal ci nun yàlla xam na itam ne sunu yaram soxla na noppalu gannaaw sunu coono liggéey